asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag bu ngeen gisee jataay bi ñu toog defe naa ne jataay la boo xam ne ki ñu toogal mën nañu suñu pàppal suñu tonton la suñu lépp la maanaam li ko waral mooy yaakaar naa ne dañ ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram muy suñu papa Gaston Mbengue parce que defe naa ne Sénégal yépp xam nañ ko à travers lamb à travers sax sport laay wax ak yeneen mbir yoo xam ne mu ngi ci ci réew mi di ci doxal nekk koo xam ne ni tey nag moom lañ fas yéene seqal waxtaan boo xam ne nii defe naa ne tey Sénégal ah du ma ëpp fi xam-xam de ci luy doxal réew waaye bokk na ci bokk ñi ci am xam-xam wala ñu koy doxal ñu ñëw nag tey seet si ko fas yéene seqal moom waxtaan papa ginnaaw bi ñu la nuyu ziar la ñu ngi lay jàmm di la ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di la wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah Babacar maa ngi leen di fay yéen itam di leen euh, gërëm sàkku lii ba tey mhm. mais tey la ko yàlla dogal euh, ci yéen luy doxal làmb ji di doxal réew mi rek ci ngeen nekk mhm. nekku leen euh, xastewu leen defu leen dara loolu euh, di wut rek lu jëmale réew mi kanam mhm. lépp lu leen ci yaakaar yéen a ngi koy def pour seen liggéey gën a jëm ci kanam yàlla na nu bokk loolu lépp yàlla na réew mi yàlla na ko yàlla sàmm laabal xol yi ñëpp nekk benn ñu jéem a liggéey àndandoog le président Macky Sall mi nga xam ne moom la fi yàlla teg pour liggéey bi liggéeyam gën a set di ñaanal bu baax nag kilifa diine yi xalif généraux yëpp yàlla bàyyi leen fi ñu yàgg fi loolu ca wér di ñaanal kilifa aada yi di ñaanal sénégalais yëpp ñi nekk fii ak ñi nekk ci diaspora bi fu sénégalais mën a nekk rek yàlla na ko fa yàlla sàmm jëlee nu fii it mbas mi nga xam ne moo lëmbalee àddina jëlee ko ci àddina bi yëpp ba nit ñëpp mën a dellu ci seen activité parce que tey économie bi daanaka rës na liggéey yi wàññeeku na nit ñi dematunu dikkatunu tiitaange bari na donc euh, ñu topp rek directive wu ministère de la santé euh, directive wu chef de l'État parce que moom su defee su tëjee wala muy aaye yenn yi e, boppam rek taxul mu koy def mais population yi ñoo tax ñu koy def te nag euh, ragal naa ni santé population yi amul njëg amul dara lu ñu ko mën a jënde du benn euh, activité bu ñu ko war a mën a jënde donc euh, nan topp nan respecté directive yi mesure barrière yëpp ñu respecté ko pour yàlla may nu tam jële fi mbas mi te ñi fi mbas mi jot a yóbbu it yàlla na yàlla xale àjjana amiin papa yàlla na yàlla nangu ñaan barke yonent bi sallallahu alayhi léegi man parce que yaakaar naa ne ñun ay jeunes lañu mhm. ñëw fekk la ci réew mi macha allah ngay yëngatu nit nekk koo xam ne man ci dara nga jóge ba na tey yàlla def dara ñëw tey defe naa ne ku jóge Louga comme ni nga ko faral di waxee di ñëw yoraale mbuus bu bulam tey mu dem ba yaakaar naa ne bu doon ñibbi macha allah li mu yor mënu ko def ci mbuus yóbbaale ko mm-hmm. loolu tamit defe naa ne dina bokkaat ci li ta dinañ bëgg nga fàttaliwaat jeunesse su senegal nit ki tamit li mu ne même bu dee day jaay caaf sa da mën a doon mu gën a gëm boppam daal waaw sant yàlla rek sant yàlla yàlla moom moo sàkk nit ñëpp ci yàlla ku ne li mu bind ci yow mënoo fexe ba doo ci jot mm-hmm. mu lu ci yow mënoo fexe ba jot lépp yàlla la fi mu ne kenn mënul dara ci àddina bi ku yàlla jàppale rek moo fi nekk comme ni nga ko waxee léegi bi ñuy ñëw indi muus mu bu la daa ah, effectivement du man rek ñu bëri àddina bi yëpp ci noonu lañ doore jaar ci ambulant jaar ci euh, dëbbal dëbbal yooyu yëpp def nañ ko te ñu nu ëpp alal fukki yor juróom yëpp ñoo fi nekk ci jaar nañ ci président de la république yi ngay fii gis sax jaar nañ ci xooslu en tant qu'étudiant ba yàlla dimbali leen jàppale leen nan ñaan yàlla rek daal yàlla jàppale na ñun ñëpp sàmm noonu laabal xol yi ñu yéene te jàmm parce que problème mu Sénégal yëpp ci xol la xol yi moom su àndee ñëpp ay jëm kanam mais su xol yi àndul wala ku nekk yi wutal sa moroom benn tâche wala di xool bët teg bët sa moroom lu nit am wala lu nit di wuti kooku yàlla yàlla moo lay weer sax yàlla moo lay moo lay moo ba pare euh, luy yàqu ci yow lay jóge donc euh, vaut mieux ñu te jàmm jàmm daal suñ ko yërantee laabal suñu xol yi ragal naa ni yàlla man na dimbali bu baax a baax a baax a baax ba ñëpp xaj parce que tey su ma la yéenee tey musiba wala ma yéene la ñàkk soo ñàkkee soo ñëwee ci man su ma la joxee 1000 francs wàññi nga sama alal kon kay yàlla na nga am ba nga xam ne doo wàññi sama. nan ñaanal nan ñaanalante jàmm rek. am solo mm-hmm. defe naa ne tamit euh, làmb moom bu ñu ko dee wax Sénégal ah comme le Don King ni ko nit ñi ni ko suñu papa ñoom Bécaye Mbaye ak Malick Thiandoum di waxee c'est le de l'arène Gaston Mbengue loolu la yàlla dogal. Mm-hmm. nga xëy xëy euh, làmb ji doon dox nga yoroon ko muy dox yaa ay promoteurs yi fi nekkoon ñu jékki-jékki nga génn Petit Mbaye yàlla indi ndox ci koom affaire yi xawoon na kii. ñu gisaat ñeneen ne fi di continuer ñoom Pa Abdou Fall di di di liggéey ba nga xëyaat ñëw retour bi bi nga dikkaatee tamit mu mel ni dafa am de plus lu yokkuwaat lu waral retour bi. waaw mais loolu lépp euh, yàlla rek yàlla mooy nattu jaamam ci lu ko neex man dama faral di wax ni làmb nattu nattu yàlla teg nit parce que jël sa alal di ko bas di ko pasa de di ko pasar pasaree bi ñu koy def nag dañu yaakaaroon ni dañu nu am dara képp kuy du jël alal di ko dugal fenn da ngay yaakaar da nga am dara mais làmb moo jafee amee dara ba pare nag booleek euh, mu nekk milieu bu malsain xalaat yu bon wax yu bon jiiñante lu bon daf ci bari mais loolu lépp rek dañ koy muñ nongu ko aussi xam ni yàlla moo nu nattu milieu bi ñu dugg ci et tout ça léeg-léeg damay dégg sax ñu tëb ñu toog sax ci plateau ni ñun ñu li ñu liggéey ci làmb ji duñ ko liggéey ba mu agsi fii nangam nangam lan la liggéey ci làmb ji làmb ji dañ leen liggéeyal ba mu neex ñu ñëw toog di jël la preuve bi ma fi nekkee de 92 ba 2006 ma indi CLAF bi di ci liggéey ba 2012 làmb ji neex attirer nit ñi attirer investisseur attirer même ay nit ñoo xam ne mësunoo xalaat ni dañu tëgg làmb ñoom ñëpp ñu dugg tey ci làmb ji donc nan delloo nit ku ne euh, njukkal ku ne li nga mérité na la koy delloo mais taxaw bëgg a ignorer Gaston wala bëgg a ay Petit Mbay ignorer ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ay Luc Nicolaï et tout ça du yoon du yoon ñooñu dafa am lu nu def ci làmb ñun dafa am lu nu def ci làmb euh, ku mu neex nag nga taxaw tey di wax mais ku su am seetlu it dégg naa un jour Alaaji nga Njaañ di ko wax ci télévision ITV Gaston dem na dellu si na mais ñam fi la ma fi bàyyi woon la fi fekkat hmm, bi nga demee dellu si la ma fi bàyyi woon hmm. ban mbër lañ fi créé bu am bu am Peugeot Balla Gaye Modou Lo Eumeu Sène Lac de Guiers Bombardier Yékini Tyson ban mbër moo ko gis nañ fi ay xale xale yi baax na Ama Balde non ñoom Ama Balde ñooñu ñooñu Ama Balde ñooñu ci ban la nekkoon. Hmm. ñooñu ñëpp. menum rëg rëg xëy na moo fi ñëw après mais ñooñu ñëpp te ku fi nekkoon rek toppoon nga ci mbër yooyu ma lim nekkoon seen i suq. Hmm. seen i suq lan woon ba ni nu ñëwee Ama Balde ba ni ma koy booleek Malick Niang fa la départ moom sax day. mbër yii fi nekk tey. ay roi des arènes yi fi nekk yëpp ci calaf bi la ko tey ku fi nekk mbaa nga tey dara mbaa nga am dara ci calaf ci reñu Gaston ñoom Petit Mbaye ñoom ko Nicolaï ci nga génn donc il faut ñuy delloo nit ñi njukkal il faut ñuy reconnaître nit ñi xam li nit ñi eh, fi nit li nit ñi def ci dëkk bi. mais est-ce que yéen jàppale bi ngeen amoon est-ce que ñi ñëw tey am nañ ko parce yow boo xoolee jamono yi ngay def kalaf beeg yooyu. boo xoolee su ma jumul amoon nga société boo xam ne bu am doole la yu la daan sponsorisé dégg naa sax daan la jox presque milliard ci at mi est-ce que doole boobu liggéey doole dañ koy liggéey di ñaan yàlla yàlla jàppale la ci ñooñu pour c'est pas pour les beaux yeux de Gaston la ñu ñëwoon di sponsoriser Gaston. Hmm. alal jo day noonu c'est que Gaston daf ko liggéey ban fekk ko ci xam da nga doon jóg di daanu. non du question jóg di daanu man ci daanu laa jóge jóg. <laughs> da ngaa daanu ba pare ci daanu laa déparé jóg mais ci liggéey liggéey ngay da liggéey ba nit ñi parce que kenn du ful société yi sànniwuñu seen xaalis dañuy seetlu xam fu ñuy def seen xaalis même yow sooy jëndi oto da ngay seet oto bu fekkee ni am nga ko. Hmm. da ngay seet oto ba gën ci oto ya nga jëndi ko. loo amul doo ko jënd société yooyu bu nu seet rek ni ñu defal nañu Gaston lii teg bët Gaston loolu moo bon ci liggéey soo tegee nit bët rek soo deful nag da ngay tardé. da ngay freiné sa bopp est que non non non non non li nga waxee rek laa la tontoo. Euh, man ku kenn yaakaaruma sax man kenn teg ma bët parce que man jàmm laa am ak ñëpp. parce que promoteur bi ñoom say doom lañu. samay samay doom samay jarwaat bañ naa ko ba fu may waxee. Ah. damay wax yàlla nañ ma ëppale yàlla nañ ma gën ma ñu ëppale ma. li may ñaanal samay doom suma ku am doom soo sañoon da lay gën promoteur yi fi nekk man def naa li may def li ma ci dese xëy na bariwul te nag mënumaa taxaw nii damaa liggéey lii damaa bëgg mu stoppé fii su ma sañoon ku ñëw da ngay def lu ëpp li ma def kooku avancement Sénégal Sénégal mooy avancé mais bu nu bu nu nit ki fang rek dafa nii que dafa am lu kenn amul man awma lu dara yàlla rek ma dimbali <laughs> yàlla mooy jàppale nit ki ah. bul ñee kenn ñeewaate baaxul gis nga tey sa micro bii nga téye tey di wër këroo kër nga dugg fay wut di lijjanti koo waxal mën ngaa dem ba yàlla dimbali la nga am télévision toog nekk sa biir bureau climatisé am ñooy commandé yàllaa man lépp yàlla na ko yàlla def amiin waay Pape léegi nag damay gën a xuus bi nga dikkaatee dañu mhm. gis sa retour ren bi nga ñëwaatee si làmb ji mhm. da dëgg ay combat Gris Bordeaux Balla sax nga jëkkoon déclaré bañ na taxaw na mais ñu dem ba ci biir moom ay jafe-jafe mhm. ñu gis nga jël sensé données yi indi bombre jox ko Eumeu Sène jël indi bombre jox ko Balla jël mhm. ko Lac de Guiers indi Diène Kaïré rek Modou Anta mhm. loolu bi bu am doole ba macha allah ak combat yu am doole yu da ngay xale rek hmm. wala ci lam mais man buum rek laa mas a indi ci lam mais retour bi moo non ma mas a def rek hmm. buum la ba may def retour manga 2 buum la woon ba may def retour Tyson buum la woon ba may indi claf buum la woon ba ma euh, entre 2010 ba 2012 ba ma Thiam li wax année de feu. année de yooyu buum la woon. Mhm. donc tout le temps lu ma indi lii du dara par rapport ak la ma daan def sax. Hmm. kon lii gën a oyof loola. lii moo gën a oyof loolu la ma daan def xëy na nit ñi namoon nan ma ndax toog naa 4 ans 5 ans nekk ci football bi. waaw dem di. Euh, ne ci AS Ndiambour. AS Ndiambour doon toppatoo sama équipe bu dëkk. fekkoon leen euh, deuxième division ma ñëw fexe ba indi leen Ligue 1 nekk ak ñoom pendant quatre ans ñu renouveler sama mandat ma xam ni lii métti na ca coono la. ca léegi nag mag laa ma bàyyi ko ak sama beneen doom boo xam ne le ministre Moussa Diop maire de Louga xale la attan na ko pour mu pour mu. eggale njaamur foo xam ne xëy na man mënu ma ko foon a àggale. parce que nag soo ñaanee sa ndono sa deewin day ñaaw kenn du ñaanee sa ndono. loo mënatul bàyyil say doom say rakk say jarabaat def ko man noonu laa gisee àddina ba may dellu si ci làmb ji li ma ci gën a dellu si sax c'était pas pour ñëw defar làmb tout court dama mujjoon a gis ni plateau yi yéen seen site yi mhm. partout fu nit toog ñu ngay yekk lu mel ni xamee président Macky ñu nga yekk lu mel ni xamee xalif généraux yi ñu ngay yekk lu mel ni xamee nit ñu baax ñi Sénégal danoo mën a suul ndaanaan nan bàyyi suul ndaanaan ku kuy liggéey nan ko jàppale ndax réew mi lay liggéeyal plateau boo toog ñu ngay xaste ñu ngay yekk lu ne Macky Sall ñu ngay wax lu taal réew mi te réew mi su takkee ñun ñëpp la tàkkal te ñoom ñiy jéem a taal réew mi kenn ci loo taal kenn amu ci kër goo taal kenn amu ci loo taal su réew mi tàkkoo ne ñoom ñoom jamais gañaaloon yàq rek lañ fi nekkee. toog ci plateau yi yàq seen bopp ci affaire yi moo tax mais amul gis sa bopp kenn gisul sa bopp ci bopp sa bopp soo ko bëggee da ngay liggéey c'est pas pour euh, taal réew mi ak di saaga ak di xasteeg yooyu moo moo lay moo lay gis loolu sa bopp da ngay gëm sa bopp dem liggéey mais pas toog ci plateau di wax wax yoo xam ni amul benn sens di sos pour jëm a taal réew mi ci amoo ke loo taal sooñ su réew mi tàkkoon doo tàkkale dara xanaa sa benn saak wala sa ñetti pantalon yoo sa ñaari xaftan mais amoo leneen loo taal ma ni nag ñii comme làmb bi mu làmb bi mu fi nekkee nekk ci kenn talul di déglu ay plateau ay xasteek ay saak ay taal réew parce que télé boo zappee fekk ñuy taal réew ma nga jàpp beneen fekk fa lamb toog seetaan grand place boo dem lamb la ñuy waxtaane hmm. loolu moo ma gën a dellu si lamb pour stabiliser indiwaat stabilité bi nga xam ne lamb moom la fi tegoon parce que lamb est un facteur de stabilité facteur de développement donc euh, il faut que yooyu yëpp ñu koy sóoraale xanaa tey su ma la déggee kon yow daa parce que sa lii ak mag sa diggante ak président moom ñu koy nuyu di ko ziar ku ne xam na ko moom it di ko ñaanal jàmm. amiin xanaa moom da ngeen a waxtaan ci mbir moom pour nga dellusiwaat ci lamb. ah non non non non président gënuma bëgg Sénégal c'est un Sénégalais sama rakk la liggéey ma xam ne li muy liggéey baax na man ma am droit di liggéey ba may liggéey ba may def ci làmb gi ba làmb ak si fii tey. ba ñëpp tey bëgg cee bokk. damaa xooloon président. boobu da nekk gu fi président. man benn président mu su ma jàppale sax ci affaire làmb. daan nañ toog sax dafa ni PS samay financé xam nga Gaston dafa weex donc te yàlla xam na ni benn dërëmu euh, parti socialiste wala benn dërëmu état mosul dugg ci sama lam man maa ko daan débrouiller di def samay montage financier di wone sama bopp pour am aura bi ma am Facky Sall dafa dafa nekk tey ci liggéey di liggéey réew mi Covid am na économie bi rës na mu mu prôné relance économique bi mbas mi wàññeekoo mu ni léegi nag li ñu mooy il faut ñu relancer waat économie réew mi ku ci nekk fi nga war a fi nga mën a relancer fi nga mën a jàpp pour relancement boobu am fa ngay jàpp man ma xam ne làmb ji industrie la dara gënu ko am importance ci Sénégal nit ñi bëgg nañ ko ma ni naa ci dugal sama loxo pour mu dem lu ma ci fekk nag lu ma ci fekk tey ma xam ne dama koo mérité c'est pas parce que dama toog rek que le président Macky Sall ni bon Gaston sama la tax ma jox ko lu wala benn société ni Gaston àndoon nanu taxal ma euh, jàppale ko damay liggéey ba nu gis ni lii may liggéey gis nañ ci seen bopp réew mi gis nañ ci seen bopp ñu soog ci dugg. mais yéen ñaar waxtaan ngeen ci. non non non non lu may waxtaan ak président Macky Sall fii laa koy waxee kilifa la man bokkuma ak nit ñi nga xam ne dañuy dévoiler secret rek wala di wax ay waxtaan. <laughs> am na solo léegi su ma continuer defe naa ne lamb yooyu taxaw na làmb yooyu nga jot a tëgg macha allah yàlla na yegg ak jàmm mais dañ ci gis benn combat boo am coow lu doy doy waar te ñu doon wax sax au début am ñu naan wax naan du combat euh, parce que Lac dama ko jël ah mu mel ni moom dafa pare Eumeu tamit tontuwaat ko fii ci micro Equivox bi coow loolu amoon ci combat bi coow li ci am noonu noo ko gisee mais lamb ak coow ñoo ànd hmm. xam nga kuy taxaw di wax Eumeu Sène Lac de Guiers 2 du combat sax da ngay wax lu la neex wala waxu soxor. parce que Eumeu seen ak Lac de Guiers seen ñaari combat yi ñu fi jot a bëri. benn combat gënu koo rëy ci combat yi ma mas a tëgg. combat yëpp ñaar yëpp dafa metti ah, day metti kenn doylewu ci. ci la soo fàttali ko ci reportage boobu ci la Moustapha Gueye taxawoon ni lii mooy combat. waaw bëri xeex. waaw ñaari combat yoo xam ni à fond lañ ko def. Mm. kon tey suñu taxawalee boobu. Mm. muy euh, parce que premier ba match ñu la woon deuxième ba ma seen daan Lac de Guiers contesté troisième ñu tegal ko c'est un très grand combat bu nit yëpp xaar. mais coow li am. ci coow li ñoom entre ñoom la seen coow du ma ci dugg. du ma seen arbitre. Hmm. nan coowante nan rayante dañuy jaay combat bi. Hmm. seen normal dañuy jouer le jeu seen normal soo lekkee su nit réew mi yëpp di la xaar danga nga war a jouer le jeu du promoteur bi rek moo war di dem di def ay promotion ñoom seen bopp mbër. xaalis bi ñuy euh, lekk suñu bëggee mu lew sax loolu moo koy lewal. jeu le jeu loolu ñuy defante waxante boobu waxante loolu mooy baaxul lamb nan ko def. mais am na am sax ñu gis waxante ba est-ce parce que la mu wax. ñii ne bu njëkk dañ daan wax lag du lag du animé lag du du du xumbal combat. du xumbal waaw tey muy xumbal ñu ne li tax muy xumbal. ok bu njëkk su xumbalul ñu ni lag dafa yaru. tey mu dem tey bay jaay komba ñu ne li tax mu koy def mais Sénégal lan la ñu bëgg Sénégal Sénégal daal. loo bëgg rek ku nuy ku nuy selew rek toog rek di nelaw. <laughs> kon yow lan lag def moom yow ànd nga ci yow. mais li mu def li ëmmat seen def Balla Gaye yu mel noonu lay def. waaw Balla de def waaw mu song mu song. mu sëf loolu de des fois mu am. Modou Lo am ak caay caayam moom. waaw waaw goog suuf. bu suuf di jaay. genre yooyu loolu wax ci lan lan lan bëgg ci combat. Ama Balde am noonu bu ñoom Boy Niang noonu. waaw mais mais ëmm seen ku ko gën ëpp caay caay suuf it amul. waaw ëmm. mais di. Ah, des fois mu rëy de gaañ lay mais combat combat ñëw rek tëgg ci tëgg ci géew bi. bëri waaw am na lu de moom yàlla loolu de dëgg la léegi nag loolu yëpp bi mu amee macha allah mel ni pay per bi mbas mi tëyee dem ñu ne dinañ nañu xool ni ñu def ba tëgg defe naa boobu ba tey waxtaan am na CNC ministère de sport ba sax mën nañ ne président parce que yaakaar naa ne am na ci loo xam ne yow xam nga ko ci tey actuellement wàllum tëggum làmb mi nii fan la toll. wala muy dugg maanaam tëgg bi ñu war a tëggaat làmb ji. mais làmb ji làmb ji bas mi ko tëral il faut ñu wut nag ay moyens yu nu ak ay euh, pexe yu nu tëggee làmb parce que. àddina bépp wut na nuy pexe même ñi ci bureau yi wut na nuy pexe nu ñuy liggéey ba kenn du ñëw ca bureau ba. toog seen kër di liggéey loolu la ñuy wax euh, football baa ngi football gis nga tey football bi ëpp alal ci àddina. ay ligue des champions ligue des champions. gis mu vide. waaw ah, ñuy football mais am na nu pexe mun koo. defe defe ba duñ ci gaañu. xëy na ambiance ba mu mooy manqué mais ñoom am na ñuy pexe donc ñun tam nañ wut suñuy pexe. est-ce que làmb am nay pexe. am nay ndax lan ba amul pexe am nay pexe. Hmm. pexe nag yaa koy wuti. Hmm. pexe yaa koy ku nekk say pexe man lu su amee pexe laay dévoilé mais man. Hmm. dama taxaw pour def pay-per-view te day am su neexee yàlla gën kon yow week la moom di nga ko tëgg. mais man ba may tëggal làmb man làmb mosuma cee jaay ticket lu mat cinquante millions ci ma daan fay deux cent millions. parce que waxtaan naa ak sa benn nit ba da naa xam ko. mu ne hmm. Gaston yàgg nay tëgg huis clos ndax day def ci làmb lu mat deux cent millions. wala trois cent millions jaay ca vingt cinq loolu huis clos la. Euh, moom de ma wax keroog ba da jon ëpp na sax huis clos kooku kay kooku kay euh, nu mu koy waxee sax làmb ju fees la ca amateur yi kii yoo lu ma dara. xam nga jaay dépensé deux cent deux cent cinquante millions ci benn tàkkusaan doo jaay vingt cinq millions ay pexey tax ma génn ca wala ay pexe pexey tax du ma rey même su ma ci génnul ma gaa su may gaañu it gaañu ba dina néew donc pexe yooyu ne ko nit ñi wuti ne ko promoteur yi wuti yàlla na leen ci yàlla dimbali yàlla na leen ci yàlla dimbali ñun ñëpp ba pexe yooyu maasale na ñun ñëpp ba nu am ko ba mën cee tëgg génn ci ba ñuy toog sax xëy na bay fàtte lamb yan daan tëgg di jaayi billet parce que nag attends jaayi billet problème yi bari na ci de. jaayu billet waaw. lamb ju dul huis charge yaa bari benn xam nga huis clos presque amul charge. ok ah, mën na wàññeeku. amul charge parce que huis clos policier du ñu bari ndax amoo koy surveiller bunt ya amul kii amul ay guichetier. jaayoo billet la ñuy la ñuy organiser seen ya koy organiser ca biir làmb ja xëy na peut-être danañu entourage làmb ji di ko wër lépp danañu ko danañu ko sécuriser mais coono yeen ci raam stress ban ci raam dootu ko ci am biir kër ngay toog seetaan peut-être que ambiance bi ñuy wax mais ambiance fépp la am football dafa am ay douzième gaynde am ay astiko am lépp muy basket ba am ay euh, feu d'artifice am lépp mu daal xub yooyu yëpp amatul ci football kenn ñu ngi koy def amatul ci yeneen jeux yi ñu ngi koy def donc alors lii la yàlla dogal mu nekk fii circonstance la il faut que ñu dem ak circonstance bi fi nekk actuellement. mais est-ce que état bi pare na pour jàpp leen parce que tamit promoteurs yi est-ce que yéen ñëpp a yem niveau parce que buñ ci jàppale est-ce que dina niveau. mais ku ci ne la nga tollool état dina la ko jox. Hmm. effectivement dégg naa sax sama benn ci sama jarbaat yi kenn ko ni. benn combat jaru fi deux cent millions kooku suma jar baat la du ma ko tontu. sëñ Fall ndax su ma fàttalikoo ni eh, calaf bu njëkk bi bi ma bi mu ñëwee initier calaf. imité ko parce que Gaston defal na ko tontu waaw journée bu njëkk ba sax man la ko tuddee. ma koy loolu dama ko du ma ko fàtte parce que nag kenn du fàtte démb. bon xëy na ñoom am nañu seen yeneen i problème ak seen yeneen i. yu ñuy waxanteeg yu ñuy defante ji làmb ji xëy na man Gaston nekkul ci yooyu man du ma ma dóor kët du ma dóor de. Ah. damay liggéey. dóor dóor du ma dóor kët benn ñaareel ba wax na dëgg benn combat man de sama combat yegul cent millions. Ah. waaw. combat Balla Gaye benn wax dëgg benn. benn kon la mu wax dëgg la. non même su doon dëgg sax da waxam façon waxin bi moo moo moo dul yoon. même su fekkee moroomu promoteur am buy dóor sax na ko bàyyeeg dóoram te moom mu def li nga xam ne moom du dóor conseil boobu rek laa koy jox keneen ku mënti def ak loo manti wax ak loo loo noo amee say pexe noo fexe ba rentabiliser bu ci yoonam nekk na na na toppatoo moom li muy def rek man man tëgguma tëgguma benn mbër fayuma benn mbër cent million mais jege na cent millions ci xam naa ni na may defaree sama làmb suñu koo dajalee ba def lépp ba def montage bi yëpp dana ëpp dana ëpp fukki yoon ak juróom cent millions yooyu muy wax. dina romb cent mais nag mais nag amul problème moom ay faux problème la ay détails la <laughs> ku ci ne daal yaa xam nooy tojee <laughs> sa bopp jinax man de façon fépp fu ma mën a toog. waaw du ma tudd sama bopp rek te tudduma leen ñoom pexe bu may wuti it dama leen ci boole waale pexe bu may wuti. fu ma mën a àgg xëy na ci ñoom nu fa àggit su may wax danaa ni promoteurs yi sonn nañu keroog la jëkk a ñëw nga xam ni c'est vingt 27 millions boobu ñu joxoon promoteurs yi pour làmbu daaw ya loolu du xaalis loolu kenn waru koo dàmpe sax promoteur acteur culturel yaa ngi nii ba leen joxee 2 milliards sax et quelque dañ koo dañ koo gedd 27 ah, millions xam nga du xaalis. jarul sax ñu ciy wax yooyu ba mu amee it man déggoo ma ci waxuma ma fa déggoo ma sax laaj ci ana xaalis ba. parce que bokkuma ca ndax daaw nekkuma fi woon Pape Abdou Fall mën ci jox cinq millions par rapport ak euh, ñi ci def deux millions lu normal la parce que aussi dafa tëggoon combat boo xam ni. c'était Papa Sow. c'était Papa Sow. Mm-hmm. bokkul ak bokkul ak donc euh, ku ci ne. Ah. Euh, dañ leen a compal rek loolu sax wàññi da leen a gën a da a gën a rey sax. Ah. compal la. mais it suñ ko séddalee nañ ko noonu ko séddalee aussi lu yoon la moo tax jarul kii warul ci woon am léegi kii warul ma ëpp léegi yooyu ku ku yàlla mooy séddale soo demee au fond yàlla mooy séddale nan ànd ñoom nekk benn man bokkuma ci benn association. yow bokkoo ci benn. bokkuma ci yooyu seen mag laa seen ndijaay laa seen papa laa ci yooyu nekkuma ci yooyu bokkuma ci association yooyu ci làmb ji laa bokk. képp ku ci doon réunion it woo pour consultance danaa ñëw toog déglu la pour wax ak yow mais nekk di kii laa faral ak kii parce que ñoom ñëpp benn la démb ñoom ñoo doon ànd ak nekkoon benn kon alalu àddina warul a jar ñuy tàqali koog wala di ku nekk teg sa morom bët jaru ko fi jaru ko am na solo